ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaaniirahim asalaatu wasalaamu ala nabil karim sayidina wa maolana muhammadin ilmakin ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawi wa tamkin bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw bu ma leen nuyoo seen bokkum taalibe Moustapha Gueye indicatif Cheikhul Khadim di taalibe Sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Moustapha Massamba radiyallahu taala anhu tey soppeeb sëñ Mbacke moom ak soxna Lo Diop Taïf tey ànd ak sëñ Mountakha ci liggéeyal sëriñ Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fa te wér tey roy Cheikh Abdou Lahad Mbacke ci ak dëgg te di ko ñaanal njéggalal yàlla tey ñaan yàlla taas ci barkeem amin di ñëw rek ci benn taxaw seetlu bu am solo boo xam ne waajib la ci bépp jullit bu yor dereti lislaam te cofeel ci lislaam di daw ci yaram ak cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak ndigalal yàlla li ngay sàmmoonteel saa su nekk ngir làq ngir moom ma koy adressé nag jëmee ko ci ti daara te buñ ne ti daara nag ñu ngi ko gën a xam ci ñiy jàngale alxuraan muy téere suñu borom bi yonent bi daan wax na ki gën ci yéen mooy ki jàngale alxuraan ak di ko jàngale alxuraan jooje nag gis nañ ne ñu ko téye te yemale wuñ dara ca cosaan ba nëgë gis nañ leen ñu jariñ ci wàllu sécurité ak wàllu lépp lu nit bëgg te muy jóge ci suñu borom loola nag kon képp ku ci nekk ba nëgë te xam li yàlla wax ci téere bi ba di ko jàngale waroo jéem a jël loolu di ko booleeg lenn loo xam ne daray suñ borom nekku ci lu dul suufeel alxuraan ak bañ alxuraan ak ñàkk jëfe alxuraan ak di mel ne di wax ne alxuraan amalu leen benn njariñ noo seulement ñu jóg doole ji leen yàlla jox ñu di ko xeexe lii may wax nag tey la am njariñ lool ci wax ko tey la wax ko jotit nag ndax am réew bu fekkee dañ koo jiite te ko jiite tuddoo ab jullit xay na fa lu ñu ko ci lislaam waaye nag ay jullit ñoo ko fal jullit yooyu ko fal nag waroon nañu am mat ak farlu ci luwaay lislaam yi nga xam ne moom la jullit bi war a doxe ñu fexe ba tabax ci parti parti boo xam ne aar lislaam doo nga ko tax a jóg ak ay décision ay décision ak xemam te fa ba kenn du am sañ-sañ am kattan ak doole bay róoru lislaam ba di ci def loo ci wata def nit ñi di dëkk aw naqar kon loolu comme amul boole wuñ leen ci réew mi ci dara dugaluñ leen ci administration doole luñ leen ci seen seeni soxla yéen a ngi dëkk ci tumuraanke daara ju taxaw yéen a ko taqalal seen bopp di ca xiif di ca mar di ca feebar te du ngeen gis ku leen ca wàllu ku dul yàlla loole ngeen nekk ca ba nëgën yi gisagu leen kenn ku leen ci fekk si kon ab noon bu jógee bëgg doole waru koo mën a amee ci biir alxuraan ab noon bu bëggee doole jumu mu xeexal islam waru ko amee ci alxuraan loolu nag aw déggin la laaj te réew mi bi ñu ko tabaxee ba nëgën yi ba moom ba li ñuy wax moom suñu bopp am suñu constitution am nañu ko lislaam jaraloon ci niti diine yi ba mu jaraloon jóg ca xam-xam ba leen yàlla jox ak kàttan ga jóg di sowee lislaam loola tax nañu daan dem dëkk ak dëkk tax nañu daan boole ay bokk tax nañu daan boole ay kilifa di joxe seen alal di joxe seeni xalaat te yàlla rekk tax xam-xam ba leen yàlla joxe ne wutoon nañ ci ñag boo xam ne dañ koy ñagee lislaam ba dara lu koy ruur du ci dugg loola ka ñuy wax sëñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma loolu ñëpp dégg nañ ko sowee na lislaam ba tey xeexal ko waaye ñàkk gañ ko ñàkk a dégg tax na li dal islam dal waaye nag dara turataawul ndax génération bu dikk rek mën nañoo jël ci lislaam jàngaat yi nu ñu mën a tabaxee li nga xam ne mooy seen jullit comme quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans lañ wax ne moo nekk ci biir Sénégal te dégg guñ fu mu yokkoo kon bu lislaam amee problème kon jullit yi wax ne ay jullit lañ te boolewuñ seen bopp te gëmuñu ko moo moo moo leen teg loolu parce que quatre vingt pour cent des musulmans bu ko cinq pour cent jàppee dégg nga di leen manipuler di leen def lu leen neex di leen néewal doole boolewuñu leen di dara tañ bokk ci lépp lépp lu ñuy participer mu ñu bokk ci loolu lees wala taxaw seetaat la te wax waxta si moom bi hamdulillahi jami'an wala tafarraqu mbooloo moom moom mooy doole nguur gi fi nekk nag depuis 2012 ba nëgë ni keroog ba nga xamee ne reprendre le pouvoir bi téye ko ci loxoom ba nëgë ni a gisul boppam ci réew mi waaye non seulement ñàkk a gis seen bopp lañ naan bàyyee ndonga boo ko saraxul nga mën ko bàyyi ak yàlla na mu def waaye dañuy toog di xeex daara di sosal daara di fental daara di waxal daara lu dëgg di ko xaj ay àqam ak yelleefam ngir bëgg fay leeral suñu borom gi muy fay téere suñu borom bi ñaata nit yi alxuraan nga gis ñu tuumal leen jàpp leen dugal ci kaso bi te loolu lépp day caaxaan ñaata imam ngeen gis fi ñu jàpp leen dugal ci kaso bi ba lay dikk ci seen gannaaw dikk ci seen gannaaw ñaata kilifa yi diine nga gis leen ñu jàpp leen toroxal bañ na tot ngir alxuraan jañ jàng ak lislaam jañ jañ jàng ñaatay dongay daara nga gis yu ñu jàpp leen toroxal leen bañ na tot di leen tere am yalwaan te joxoo leen dara te ñu bokk ci réew mi lépp luy xew ci réew mi ñu ngi ci ñu ngi ciy participer 100 pour cent nit ki ko jàppoo ko premier mandat jàpp ko deuxième mandat ba mandat bi di bëgg a jeex am jëmm ju jóg bëgg a laaj réew mi di tuddoo lislaam di indi ay ay ay alxuraan yor jikkoy lislaam ci la lislaam santaane ñoo am yaakaar war a jàppale kooka ngir la mu wax ñu man ko ca jàppalu ba ñuy gis lu ko dindi bu ëllëgee kooka jóg di nemmiku di dugg ci biir askan wi di dem ci sëriñi daara yi di saafante ak ñoom di ko wax ak ñoom ba convaincre leen ba ñu yëkkati kamil alxuraan leen jox ñu gis ne mi ngi ciy commencé di réaliser te kooka ba mu jógee ba mu wóor na mi ngi laal lu jege ci lislaam ngir soutenir ko sos wudul woowu jinne defal nañ ko bëgg koo jël toroxal ko ci ci ci kanamu adduna ñëpp waaye gis nga alxuraan di ko protéger te yàlla képp ko jàpp alxuraan def ko si cëslaay alxuraan dana la protéger ba kenn mënalu ko dara kooka nag bañ gisee la nga xam ne ma ngi koy indi ma ngi koy indi ci réew mi ci ak coppite ñi nga xam ne nag ñoom ñoo doon xeex loola dem ba xam ne nag kii buñ ko bàyyee mu continuer dana fi def loo xam ne que nii ñoom bu ëllëgee seen gàcce lay doon ñu xëy xëy bëgg a wëlbatiku na ñoom daara yi nga xam ne alxuraan lañ jàng dajal leen ci benn barab mu waxtaan ak ñoom te waxtaan waa yooyu yëpp yaakaaru ci lu dul lu leen loxo ak lu leen gàllankoor ci alal yi nga xam ne réew mee ko bokk te ñëpp bokk ko te ñëpp mënuñu ca jot mu yëkkati ko gere leen ko ngir ñu ànd ak moom ci loola. kon yéen ñii niti daara coono bu ngeen del fukki at ak ñaar weer yu néew bu tax mukk ñu jël alal yoo xam ne si alal ju araam la di leen ko jox dajale leen ci as toog ci as néegam ba ngeen dajaloo mu génn. du may kenn mu posé question du may kenn mu wax xalaatam jekki-jekki wax ne ànd ngeen ak moom yëkkati ay millions jox leen mu féewale leen su ko defee alxuraan ja ngi ja leen boole woon lépp saytaane dina ñëw fexe ba dugg ci dugal ci loxo moom tàqale leen kon am leen xel amu am am jom am ngor te xam ne yàlla yàlla ay buur am yàlla yàllaay buur ñàkk-ñàkk yàlla ay buur ku am yàlla la jox kon nag na ngeen fexe ba bu leen bokk ci ñi nga xam ne dañoo tudde seen bopp ay imam dajale leen ñu wan seeni moromi imam gannaaw di tëral ay loi yu doy waar ci biir réew mi fexe ba boole imam yi tudd li te taqal ci lislaam jox leen xaalis ñooñu daal di beddi ko commencé ànd ak ñoom di commencé di taggaate ak di ko wax te lañ xeex lañ leen def ci fukki at ak ñaar wala lañ leen def ci fukki at ak benn yépp ñu fàtte loola bu mu leen dal mukk te xam ne fu ngeen dajaloo nangoo dem bu xaalis génnee rek féewaloo dana ñëw te xam ne loolu lëggéeyub seytaane te kuy dund ci alxuraan war ngaa weesu loolu ku nekk fii di jàpp sëriñu alxuraan di tëj di jàpp dongay daara di leen tere yalwaan di leen tëj di sosal sëriñay daara di leen toroxal di leen wilipaane te ku saaga sëriñub daara ñu jël la favoriser la alxuraan di jóg di ñot ñotti ñay taal seen i mat di taal seen i ngàññi di jàngale di dund feebar di dund feebar bu metti duñu lekk duñ naan duñ faju ba alxuraan dem ba mën a génn réew mi di jogante ji ba gañee ay victoire ñëw ci biir réew mi te kenn du leen teeru kenn du leen eh, eh, tatagal kenn du leen sargal lu dul lu ca waay li muccatu la def bañ ku la ca ŋàññi tax nga yëkkati ab sarax dem di leen ko jox alxuraan ja téye boppam ba andi victoire boppam alxuraan jooje bu ngeen ci jàppee fi ngeen bëgg àgg mën na leen faa yóbbu kon li ma leen di ñaan alxuraan du ay caaxaan ku bëgg sécurité wu jëlal alxuraan ku bëgg am koom jëlal alxuraan ku bëgg mucc àddina ak àllaaxira jëlal alxuraan nit mënalul kenn leneen leneen lu dul alxuraan leneen alxuraan mënal nit mënul leen ko taab xaalis nag ñaari fu mu dugg dana fekk leeral suñu borom mu di ko jéem a fay kon bu ngeen mënta ñàkk ba ñëw ci na ngeen dajaloo ci leen alxuraan wax ci wax tasi ma laay laa jëmeen wala tafarraxoo su ngeen demee it na ngeen wax li metti alxuraan te bu leen tàqaleku mukk bu leen alal tàqale lun mën a yëkkati jox leen te ki la koy jox mënta tari ayab alxuraan mosu leen a gis mu doole alxuraan alxuraan mosu andi victoire Sénégal ba nga gis mu participer ci ni muy participer ci leneen li na ngeen xam ne ay nax ak caaxaan ak utiliser leen ak yàq seenub der doo nga ko tax a jóg barki démb la imaam faatu fii te imaam xam nañ ne imaam lii wala mooy jiite ci jàkka ja ak jàng jàngale barki démb lañ jàpp fii ab sëriñu ab daara jàpp ko ca njaañ ba seen xel nekkoon ci naxaataay ko jàpp ko naroon ko tëj ba gis nga bi nit daara jóge nañ leen sawee attewuñ ci luwaab islam li islam bëgguñu l'islam non seulement ñi taxaw di xeex l'islam la ko dale ci kilifa yi diine yi fi jaar ci cosaan yépp la taxoon ñu am ak tubaab bi problème am ak réew mi problème islam a tax ñu am ak ñoom problème moo tax suñu yaakaaru tey ëllëg sëñ tubaab di wax naan xusóor yi xalat wala ahlu an yi tafaraxat li mat xi la si yaxan ma day xasiru te teewu leen woon di dund te kenn taxawul woon seen kenn mës la gis ñu yëkkati bitse ñu jëmee ko ci alxuraan kenn mës la gis ñu nommé bind si boo xam ne si ci alxuraan a tax ñu nommé ko kenn mës gis ñu doon lislaam lislaam ci ay moyens boppam lay dox kon nag bu nit jógee fële doonul dara ci alxuraan bëggul alxuraan di xeex alxuraan bu leen dajalee ngir intérêt boppam taxaw leen lànkat xam ne intere suñ borom a lépp lii daal message la boo xam ne si mënuma ko woon a ñàkk bañ a joxe am leen fulla ak fayda ndax kenn fekku leen ci li ngeen nekk bu fekkee nag ku bëgg a tasaare imaam dajale xaalis ku bëgg a tasaare sëriñi daara dajale xaalis ku bëgg a tasaare mbooloo dajale xaalis war ngeen a xoolaat ayab alxuraan boobu dinaan wax tasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu loolu daal mooy li nga xam ne maa lañ ko bëgg a wax ay nit bu ñu jógee di laaj benn intérêt boobu ñëpp ko bokk da ngeen xool ka gën a jege lislaam waxoon naa ko ci élection yële passé ki gën a jege lislaam la ca xol ba nag yàlla ko am waaye kenn ku ne say wax ka ca islam gën a convaincre wala ka ca gën a convaincre nit yi ci lislaam nañu ànd ak kooka ki mën a ta tari aaya alxuraan mu jub kii dem di seeti sëriñi daara ki jàng alxuraan ki ragal yàlla kooku bu dee xëccoo dara na lislaam dem farte kook wala ngeen dem farte lislaam lii daal mooy li nga xam ne man gis naa ko muy lu ma naqari loo xam ne ni nag gis naa ne mi ngi yor te ak fiir la guñ leen tegal ngir bëgguñ leen humilier ngir bëgg seeni adversaire am problème loola daal bu leen ko may kenn ndax du ngeen ay jaahil jàng ngeen te gis ngeen la yónnante bi daj ci kaw suuf gis ko li sëñ Tuubaa daj li Alaaji Malik daj et cetera et cetera ku bëgg lu baax lim daj su ko defee nag fi may daanale gis ngeen ne ci lii may wax li koy confirmer la gis ngeen fi ne ku jóg di wax ci lislaam luy tasaare mbooloo wala luy tax islam am problème gis ngeen ni ñu koy favoriser jëmm ji sant Siise gis ngeen fan yii ni mu jëlee islaam def ko adversaire di ca wax lu bon di ca sas di ca fen ba lii mu mujj a wax jëmee ko ci Eh, jàkka yi nga xam ne dafa wax ne dafa am lu ñu fa war a dem di séddale te la ma ci jaaxal mooy moom de mën naa ne sax deful dara ndax dof buy say ñëpp xam nañ ne day say waaye nag bu fekkee yow mi nga xam ne jàpp nga ne nit nga te am nga moyen tasaare ay xabaar ngay fekk koo xam ne si day wax waxi dof day saboté l'islam di saaga l'islam nga bëgg sa intérêt bopp tax nga di ko jaare ca liy mabbu lislaam waxtu woo wu def kenn ku ne yenn sa caméra ak say journaliste say moyen ak sa transport dem fekk ko mu nekk muy wax luy sàggane lislaam di saaga lislaam ñu topp ci di ci commentaire bu kii jëlee tey bu suba kële jël première responsabilité bi kii jël xabaar di ko tasaare ci loo xam ne nekk nii xabaar bu yee fitna la wala buy buy sabati lislaam kookee bu ñuy wax ci moom la ñu war a njëkk a te Sénégal am nañ habitude bu ban boo xam ne si tasaare lu bon a leen gënal tasaare lu baax lu baax mën nañ ko romb duñ ci am soxla waaye lu bon fu ñu ko gis am soxla te dund ga ñuy dund ci lu bon a tax loolu nag ci aw askan àggee xamal ne askan woowu moom comme génn fóote na ngeen xam ne yéen ñi jël xabaar yi di ko tasaare ak di fekk ku bon ngeen di ko jéem a favoriser fekk ku dof ngeen di ko favoriser te dof boobu ngeen di ko favoriser ci islam ngeen koy màbb gu muy màbb islam a tax di ko def ndax àddina bu bon bii dong njiiti réew yi fi nekk te dëng tey jii kenn ku ñemee dem dëkk kenn micro di ko saaga sëb sit di ko jàllale amul kenn ku mën a demeet ñuy yàq sa sa dund wala ñu yàq sa turu directeur di wax ci moom lu bon nga di ko te am na ci télé yooyu fii nag ku ko jàllale am na tele yooyu ko waxoon ku bokk ci ñoom lu bon luñ ko jàllale waaye ku ko wax ci seen morom ñi jàllale ko ku ko wax ci lislaam ñi jàllale ko ragal gan ragal seen seeni patron ragal ko nag njiitum réew mi kooko yàllaa ci gën a yey yëpp loola alal jëru ko bëgg dund jëru ko bëgg ko la xam jëru ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf